que nous avons vraiment mal par rapport au fonctionnement normal de l'institution judiciaire. C'est ce que j'avais à dire. Ah, ah, Comment ah, atebi. bi tous tout qui, nee na que atebi, bi un jour, pas mu atte ne que moom am na sañ-sañu atte loolu bu ñu ñëwee été. di di ci di ci wax juge bi fa mu ko tëralee dégg nga gis nañ ne que gisuñu fenn far fu mu war a jalgatee yoon ba pare dellu nekk wante li nga xam ne que juge ju Ziguinchor dafa nekk euh, maanaam këyit yi nga xam ne que dañoo yëgal dañ bëggoon yëgal Ousmane Sonko nekk dind nañ la ci liste yi kayit boobu fi ñu ko war a yóbbu moom moo di. fañu mujjé xamné ka fofu que Ousmane Sonko dëkk te loolu cité kër góor gi la et que kon que nan la ci juge bi yamul fofu daf ci yok ne ka manam Ousmane Sonko euh euh yëgle bobu dañ ci waron bolé euh buñ yóbbu kayit di mairie ba pare yegalat ko ko kon loolu juge bi dafa yokk ci li yoon wax. dafa waroon yem ret yon yoon momo moom moo di ke yóbbu nañ ko keur Ousmane Sonko ci dafa di lo xamne euh, manam manam dafa yak atem kon bok legi faase na atte bobu atte bobu nekkat na tous kon dañ ko wara a wat te legi kon tribunalu euh, jox na ndigal tribunalu Dakar ñu wat atte bi saytuwaat ko loolu nag li muy tekki moom moo di que ci po bi ñuy po bu fekkee ne que loolu gis na ko et que problème mu këyit rek la na wax loolu moom est-ce que këyit boobu juge bële nee na que huissier bi dafa waroon yónnee poste kayit bi pour ko Ousmane mën cee jot ñoom nee nañ ko loolu daf cee yokk su fekkee ne daf cee yokk war nañu mën a wax léegi lan la ñuy dogal ndax Ousmane dañ koy bàyyi ci liste bi. wala ndax Ousmane dañ koy wala dañ koy jënd ci liste bi wante doxalin bi foo ñuy jëm moom moo di dañoo nar mujj di dem di dem di dem di dem ba nga xam ne que parrainage yi jeex na te fekk inscrire ñu Ousmane dañ ko joxe fiche am muy dem di dem di dem ba ñu joxe candi candidature yi ñu joxee candidature yi fekk Ousmane ay kayitam deful parrainage du mën a bokk bu boobaa ñoom bu ñu ñëwee nekk Ousmane war na bokk kon kooku en fait ñu ngi indi situation boo xam ne que euh, ñoom ñoo xam fan lañu bëgg a jëmee réew mi en tout cas nii ñuy doxalee réew mi lëndëm na lool te nii ñu ko doxalee yi maanaam toll nañu foo xam ne que fi mu ne nit ñi gëm ak yaakaar yi ñu amoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu ñoom ñoom ñoo ñànk réew mi dégg nga la ca woon tuuti sax gëm-gëm gëm-gëm baa ngi dee dégg nga voilà jërëjëf ngeen li nga xam ne moom mooy maîtresse. ngeen li nga xam ne moom la maître Ciré Clédor.